asalaamaaleykum mbokk internet Baol TV pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen jiha tey nag ñu ngi fii ci Tëngéej seet si ndaanaan seet ci champion mi ki nga xamante ne mooy Papa Yade Papa Yade kenn dut ko présenté ku ne xam na ne takku saanam bu mujj ak Papa Boy Djiné yàlla ci euh, moom mi la mayoon dam tey ñu seet si ko ñu doon dégg combat ak anti mais nag ba tey ci biir combat boobu la ñuy ñëw leeral ak carrière am waxtaan ak moom ci làmb naka la def ba dugg ci làmb et di leen béggee di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm. waaw du nuyu Modou Antier sûrement fi ma dëkk nii jokkul du nuyu waa Tëngéej bu baax a baax a baax a baax du nuyu gars yi ma àndal ko su mel ne ay ñoomin jibi xam nga ay moodu fay gars yi xam na fu ñu sonnee dañ fay sonn xam nga di leen ziyaar bu wér daal. waaw site bi moom Baye gars yi ñu ngi koy seetaan di ko gem quoi man fan yii yëpp moom ma duggee si YouTube bi moom laay xool quoi parce que ainsi mu ngi liggéey lu am njëriñ di ko ñaanal rek yàlla nañ gën ñu dem dem bañ dégg leen fu gën a sori daal ñu ngi si yoon wi yàlla baax na. Papa Yade dëkk Tëngéej su ma juumul ngay doomu Lebu tey jii nii mun nañ xam lan moo la dugal ci bëre da nga gis mbër muy bëre mu neex la wala da nga am ambition dugg ci bëre wala lan moo tax nga dugg ci bëre. waaw bëre man mu siy dugg boobu mën naa wax ne xale laa ko wax parce que maa ngi duggandoo ku ñu naan Baldo raku gàmbu gay am laa bërandool waa Alpha boobu ay xale la ñuy àndal di dem jël ay mbapat yu am fii ñuy teg laay làmb di fi jël ay saaku ceeb yooyu xam nga foofu laa commencé di bëre daal xam nga gars yi nag bëgguñu si naan boo leen continuer jàppoo ko ni affaire day teew ñu nekkal suñu bopp sama yaa nag daan ma tere mais daal ñëw ni si kër gi tijji fekk ay ñetti saaku ceeb si buntu kër bi munoo foo jëlee lii mu nekk làmb mbapat mu commencé xam nga noonu laa def ba naaxanteex moom mu bàyyi mu bëre quoi di dem di bëre di ay jël ay nag yooyu di yeew sama buntu koor man fii ku ma fi xam yeew nag lañ ma xamee sama buntu kër mu ngi si ginnaaw boo ñëwee foofu si potulaam bi ay fekk fa ñetti nag ñaar nag ma yeew ko fa di góorgóorlu mais espace laa amul. nag yi foo ko jëlee ci àll bi. laa ko jëlee yenay fii nii yenay si àll bi man dem si dëkki àll bi ku si mel ni dëkk dëkk yi nii waaye ay mbasis fim laa yooyu noonu ay félir foofu yëpp jël naa fa ay nag affaire yooyu noonu. arène bi arène bi mun nañ xam kan nga njëkk bëreel arène. arène waaw maa ngi njëkk a bëree benn mbëru grand combat ku ñu naan Turbo mooy sama premier grand combat Turbo bu Tivaouane moom laa njëkk a bëreel waaw bi ma koy bi ma koy jël sa ñu bëri dañ ñamoon boo demee dañ lay daan parce ki ngay bëreel nii mbëru grand combat la bëri na six combat grand combat yow bi mooy sa premier combat ma gëm li ma gëm rek xam li ma xam dem yàlla may ma si ndam waaw. bi nga amee ndam ñi doon wax ne dalay daan mbëru grand combat la après nan lañ mujjee ak yow. waaw après dañ ñëw rek xam nga mbër moom boo ko neexee moom ngay gis inventation bu ne ngay gis da ngay gis inventation bu ne ñii naan non amul doole ñii naan amul nii amul naa mais yow li nga. xam estaf estaf bee ko doon wax wala ñi ci biti ñoo si biti ñii ma xamul amoon ñun di nga dëkkax moom mais dañ ko umpale loolu day am yow am na ñoo xam ne mën nañ dëkkax yow sa mais duñ la xam. mais nii nii dëkkul lewu la dañ am na ñoo xam ne dañ lay xam am na ñoo xam ne xam la parce que nit boo ko toppul doo ko xam man dama génn si àll bi mbapat jël façon drapeau bu ne wala quoi waaw. tey nekk ay mbër fii euh, ci Tëngéej seen relation ak mbër yi soo ma ciy wax loo sama relation mbër yi man presque mbëri Tëngéej fii nii ñi fi gën a ndaw man si laa man xale bu ndaw laa ma xale bu ndaw laa ñi toog nii ñi ñooy samay morom booy yi ñooy samay morom man xale bu ndaw laa juddooguma ko waa damay soog a dugg si làmba si buntu àdduna laay soog a dugg nii rek xam nga. damay soog a juddu ah. may soog a juddu barke yàlla ma la waxoon samay at samay samay at na naan déedéet naan papa yaa dëgg waaw a a njool. yegg nga ci vingt ans yi moom. vingt de. doo ma ne dix huit ans nga yor de. non gars yi xam nga rek wax ñu a wax ñu barki yàlla xam nga rek nekk si yoon daal nekk ay xale yu ndaw barki yàlla. ñaata mbër ñoo la daan foofu laa njëkkee ñaata mbër daan. ñaara mbër ñoo ma daan sama daan si ma sama am defet. yaa ma sa am maa ma victoire. ñaata mbër man daan naa lu mat ay six mbër kii maa ko daan bu doo kii bëri nañ deux ziga ba fan yii passé dama bëree kan arène nationale da nañ ma daan ka sama waaw dama bëree daan naa ko kooku noonu sama troisième combat maa daan. jël boulon pàcc am tamit bëre nañ affaire yooyu man laama dama si daan ay champion ñoo xam ne ñu ngi bëre ay grand combat. maanaam Papa Yade déggagul muñal ci làmb ji. waaw Yade masul dégg muñal masul dégg muñal si làmb ji a dégg mën naa ko dégg sax kuy bëre mooy daanu parce que laama mën nga dem booy dem ñaar nga yóbbaale ñàkk wala am mën nga dem ñàkk mën nga dem yàlla may la ndam mais damay ñaan yàlla yàlla na yéex waa parce que xale laa maa ngi si yoon nekk si xam nga ñi may jàppale di jàppale man booy laa am ñoo may jàppale Baye Fall yi amul kuy yëkkati dërëmam di ko def si man ku lul paate booy xam nga loolu dama siy sant yàlla bu baax. dem nga mbapat bëri nga six combats mais benn coow moo la topp ci làmb ji mooy bi nga bëree ak papa booy jinne tey mun nañ ne fala la coowu làmb toppee fala la ñu bëri ràññee tey mun nañ xam euh, différence bi ak yeneen combats lan la. waaw man coow làmba isuwaaru laama yàgg naa boko bokk bulul Papa Boy Djiné sax. mais boobu moo la gën a siiwal nañu waxante dëgg. waaw loolu dinañ si ñëw isuwaaru làmba man yàgg naa si bokk parce que man kii nii Moussa Vagay bi muy def les les tigre di tudd turbo man ñëw daan turbo Moussa Vagay di wax si man loolu dama koy sant yàlla quoi. teg fii nag teg fii nag gars yi ne gars yi ne bàyyi ñii dañuy jël nag bi yóbbu ko xam nga man nekk booy mu ndaw. Ronaldo bàyyi ne ma bàyyi ma fenn Ronaldo moo jaxle xam nga moo ne ma mbër boo nag bi day dem man ma simmeeku jaayante bàyyi jël nag bi ñëw takk sama bundu. ñoom ana ñu. non boobu ñoom xam nga rek. ñoom ñoom yàgg nañ fi jël ay mbapat quoi. Ah, ñu bàyyee la ko. waaw ñoom yàgg nañ fi jël mbapat te wóolu nañ seen rakk yi xam nañ ne booy bi nii am li nekk si ñoom ñoom li ñu def si man ñoom xam nañ ko quoi. moo tax waaw dama nekk xale mais ñoom li ñu def si man ñoom xam ñoom xam nañ ko moo tax ñoom ñu wóolu ma si lu bëri ku si mel ne ay Papa Ndiaye ji bi ñoom ñoom ay Gambu Gueye xam nga ñooñ samay mag Moustapha Gueye lu mu doon wax léegi na booy bi nii ku ko ku bàyyi si làmb ko bàyyi xel si làmb di ngeen gis champion waa Tëngéej nañ nga jàppale Moustapha Gueye dama fekk équipe nationale boo maa ngi doon booy bu ndaw boo maa ngi jël ndaf lañ maa ngi jël ndaf lañ ñu ñu jox ma un million boo maa ngi daan usine doole final boo maa ngi àndax booy bi Modou Faye ay papa booy ñoom teewaloon cumbukaa ak booy bi di ataaya ni du Faye kii fekk ma équipe nationale Moustapha Gueye di wax mais booy bi ku ko bàyyi xel dinañ am champion si làmb mais yooyu yëpp ay santa yàlla la mënuñu dara borom bi rek a mën. Euh, duñ ne Papa Boy Djiné moo tax nga am buzz ci làmb ji Papa Boy Djiné tamit duñ ne Papa Yade moo am moo tax mu am buzz ci làmb ji mais yéen ñaar bañ leen boole ci làmb dafa seen coow dafa ëpp foofu laay waxee ak yow coow li lan moo ko waral néew ma ne moo la jox buzz wala yaa ko jox buzz par rapport ak yeneen combat yi ngeen doon bëre làmb ji dafa bëri coow. mais xëy na dañ nekk nag ay jeunes quoi nekk ay gune xam nga. mu nekk suñu yoonu làmb daal ñu boole ñu xam nga maa ngay nuyu bu amaatee combat yàlla nga yàlla may ndam loolu la quoi xam naa looloo tax coow lu bëri dañ nekk si yoon quoi amaat na combat waaw maa ngay ñaanal rek bu amee combat yàlla nga yàlla may ndam parce que wax dëgg yàlla moom dafa baax quoi amul benn problème ku ñaakat ki ñaan la quoi parce que nit boo bëree moom rek ba pare da nga war a mën a wax si moom lu rafet quoi loolu mooy nit te man noonu laa mel man soxoruma lébu laa waaw bu jeexee jeex na bu xaar waaw la demee nag mais bu ñu si waree nekk dañ koy safal ba mu saf jël meexu géej xam nga gën nga si dolli. yéen fii ban sonogaar ngeen génne gars yi naan rang muy gaaw ñii naan euh, këlam muy mu lay maas xaw ma yéen la la si kanam bi émission bi du pareet waaw gars yi laa lay jox ñu wax la bii génne. war nga koo mën a xam. non man xam naa ko mais na ay curuxu curuxu ay yooyu waaw yéen waa Tëngéej. waaw fii di la bàyyi <laughs> en tout cas xam naa ne moom Baye Fall Baye Fall a jaaxal bandi jaaxal naa féex a jaaxal koo gis si àdduna. ñun moom ay Baye Fall la ñun gars yi dañ leen bàyyi ñuy génn seen affaire jigéen génn ay yox la jëli ko. ay la jëli ko yooyu yëpp ay kàllaama la ay. yoole yoole def sa poos. non yoole yoole def sa yoole def ko si géej que ñi naan fi yoole yëpp bàyyi dugal nañ leen si si la neen ax la neen ñuy wax quoi mais am na ñu mu naan bëre ñu naan ay yoole mais ñooñu ñëpp bàyyi nañ ah, yoole. ñooñu dañ leen a paqueté. leen paqueté dama seen morom wan na man bàyyi fi laa dëkk si taatu géej gi xeer yaa ngi ne la dem géej dem ndeppe uti jën lakki man loolu laay def ay dem ndeppe uti jën lakki man yooyu laa gëm lébu laa quoi nit sa culture waroo ko ñaax waroo ko kii. tey nga jógee ci Papa Boy Djiné boobu ba léegi ñuy xaar sa komba di dégg sa komba ak anti combat ak anti lan moo ko yàq jëloon naa la fi ay jamono nga ne ma sa supporters yi ñoo bëggut sa komba ak anti lan moo tax supporters yi parce que andi làmb kenn xamu ko. doo d'accord ak xam nga doo d'accord man foofu noonu. làmb buñ nga xamee xam nga fa lañ nga xam. Fass gi mu dëkk foofu muy nekk di bandi bandi du rëy làmmañ moom dafa tardé si làmb parce que moom mag la buñ koy xam booru Ndakaaru Fass lañ nga xamee mais kenn xamee ko Sénégal parce que mbëru soxor moom dama ko déglu benn interview mu ne man fan si bandi laa yee man ku ma xam nga xam ne si liggéey nga ma xamee bu fekkee bandi affaire la yàqute xam nga loolu fii la ëppee woon. bu fekkee loolu dañ si jublu woon pour def kon yàqu nañ bu yàgga moom nag xëy na yooyu lay daw moo tax mu tardé si làmba nit du soxor waa doomu aadama man du ma soxor a mbër mais moom soxor moo tax ay aada faas raw ko si làmba ñaata combat la bëre aada combat bi aada faas amoon ñett cinq combat xaw six combat xool fi ngay dégg si làmba ñaa ñaaka soxor moo tax mu toll foofu si làmba mais Andy dafa soxor moo tax kenn xamu ko si làmba barki Alxuraan yow xamoo ant ci làmb ant nit ñi xam nañ ko ci làmb ko ku ma jëloon avant ne yow xamoo nañ ant ci làmb te ñeneen xam nañ dama ko déglu interview mu ne Pathia am la